combat baa ngi doog commencé nee nañ nag gis ngeen fu mu ne nii reculé nañ dellu nañ ginnaaw de xam ndax yëg ko mais dellu nañ ginnaaw de Macky Sall ak bandem yooyu noonu nekk ci conseil constitutionnel bi juróom-ñaari golo yooyu ñu fa teg ñu leen di woowee sage duñ ay sage ay singe lañu juróom-ñaaru singe yooyu weccoo askanu aboneeru askanu Sénégal ak ndax pour ay privilèges yu leen Macky Sall jox parce que tamit ay franc-maçon la ñaa ah, bu leen fàtte loolu gars yi Macky Sall ñëw leen neexal nii rek de non non non non loolu bu ko jàppee da ngeen gaa yooyu tedd nañ bu yàgg ñu ngeen di ci conseil constitutionnel bi tedd nañu bu yàgg bu leen xam ñaata at ñu ngi nii ñuy fay ko ay millions ñoom tedd nañu. xam nga lan moo tax ñu nangu li Macky Sall bëgg parce que ay franc-maçon lañ ñoom waa conseil constitutionnel bu Sénégal ay franc-maçon gën mag ci réew mi ay franc ñoo ko yor maa leen koy yox man. parce que tubaab bi dafa organiser système politique bu Sénégal ngeen système bi système bi système bu maçonnique la. ku ci dem ba yegg ci yenn niveau yi parce que franc-maçon nga boo nekkul franc-maçon doo yegg ci yenn niveau yi man maa leen koy wax bu leen ko gëmee looloo am bu ngeen gëmul looloo am man maa leen koy wax système bi nekk Sénégal ñi ngeen gis ñëpp ñu dem ba yegg ci yenn niveau yi parce ay franc-maçon boo nekkul franc doo fa yegg te Ousmane Sonko looloo looloo seen problème tey ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee moom du dugg ci franc-maçonnerie du dugg ci affaire ñoom ñëpp a dekki parce que ñoom ñëpp ay franc lañu ñoom ñëpp laa wax nag loolu il ko senegal ay xam ko suñu xeex bii nii pour ñu dem ci wala bokk ñu taxaw ci taxawaay bi nga xamante ne moom moo ci war dëgg dëgg dëgg il faut que ñu xam ñi ñu jàkkaar loolu ñan lañu il faut que ñu xam ko ay franc-maçon lañu ah Idrissa Seck ñàkk jom muy mel ni kaña. génn taxaw naan da am day am lu muy wax ah réew mi buñ si jégulee ah parce que gars yi ñu ko seqal danoo am ñàkk jom bi ñu àndal kenn mënu koo natt kenn ay nit lañ yoo xamante ni ñu sax ni ñoom ñu dee nañ leen àtte yaakaaruñu ko gëmuñ sax ni buñ dee nañ leen àtte ay magum jëmm di wane ñàkk jom boo xamante ne nii kenn mënu ko natt. waaye yenn yi ku gëm yàlla du ko def waaye ñi ngi ko seqal gëmuñu yàlla il faut que ñu xam loolu ñun moo waral ñu nekk ci biir diin ci biir réew mi di xeex diina ji di ko jaarale ci ay daara seen caga boobu ñu jël indi ko foofu nday sara Diop Dieng boobu moom la ñu pour mu xeex daara yi xeex lislaam ci xale yu ndaw ñi loolu il faut ngeen xam ko. ñi bëgg jàmm ci réew mi mooy ñi génnoon démb parce que nag gis nga jàmm dóor fayu moo koy andi. nit ki bu la toppee di la dóor di la dóor di la defoo dara saa yi doo doo mës a dikk ci jàmm doo te résisté woo doo mës a nekk ci jàmm boo fayoo nag bu safee ci moom day taxaw bu taxawee nga am jàmm mu am jàmm lii mooy indi jàmm. ku leen waxul lii da leen di nax muy kilifa diine muy kilifa aada ak ku mu mën a doon ku leen waxul ni nit bu loo dóoree fay nga fayu fayu bul fayu wala bokk nga nga fayu ku la ko waxul waxul la li gën ci yow waxul la lu baax ci yow. parce que ñun bu fekkee ci wàllu diine ñun am nañu référence ah bu bu dee wàllu diine ñun fii kenn du fi suñu référence ku dul Seydina Mohamed loolu la yàlla dox loolu la yàlla wax yàlla waxul waxul roy leen ci kenn Seydina Mohamed la wax roy leen ko ci moom Seydina Mohamed daf ñu jàngal lépp nag daf ñu jàngal diine jàngal ñu àdduna bu dee ci wàllu àdduna mun nañ koo roy bu dee ci wàllu diine la mun nañ koo roy lii moo am buñ fi nekk fii di jéem a lëndëmal kàtt gi wala ñuy jéem yaa ngi dégg sonal suñu bopp ñun suñu suñu référence leer na te nag mooy référence su àdduna de bu ngeen bëggee dëgg-dëgg Seydina Mohamed mooy référence su àdduna même ñunu jullit sax dañuy jël référence yi dem leen ci internet bi ngeen xool nga xamante ne nekkuñu ay jullit tagg yi nga xamante ne tagg nañ ko Seydina Mohamed ci wàllu spirituel ak ci wàllu temporel lu may wax nii su dem leen ci internet bi ngeen xool les libre penseurs yi gën a mag ci Europe libre penseur mooy ñi nga xamante ne ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi gëmuñu dis gëmuñu diine gëmuñu dara ay nit lañ yoo xamante dañuy dox ci àdduna nii rek li seen bët tegu ñoom ci loolu la ñuy gëm. dam leen xool nañu wax ci Seydina Seydina Mohamed Seydina Mohamed ku bëgg a def politique bëgg a réussir politique politique nag bu tax ñuy wax politique c'est-à-dire bi nga xamante ne mooy dëgg daane politique parce que li xew Sénégal du politique ah, li xew Sénégal c'est du banditisme moom laa leen wax dafa bi muy dem dafa organiser Sénégal benn cercle politique la la créé Sénégal ba nga xamante ne nii képp koo xamante ne nii saa yi da ngaa nangul tubaab bi dañ la bàyyi nga dugg cercle politique boobu boo ko nangulul doo fa dugg loolu lu muy firndeel mooy ñëpp ñi nekk ci système politique bu Sénégal à part Ousmane Sonko dañoo nangul tubaab bi dañ ko nangul parce que tubaab bi cercle politique bu mu créé Sénégal pour mu toog pour mu toog dëkkam li mu di mu koy am ci réew mi. parce que résultat yi moom moom moom li gis ah looloo tax 1960 ba léegi Sénégal am Sénégal mënut a bouger un mètre loolu moo ko waral parce que cercle politique bi tubaab bi tracé ku nangul tubaab bi moo fay dugg ku ko nangul doo fa dugg Ousmane Sonko nag ñëw yàq li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy cest boobu noonu loolu tax ñu bëgg ko si ñu bugg ko éliminer kut ko kut. ma ne gis ngeen dama leen dox benn affaire te loolu. loolu di ngeen ko di ngeen ko dégg ci kanam gis nga xale yi ñu sacrifié nii xale yi lakk noonu ci hôpital ñu naan ay dañoo lakk te kenn gisul seen i koor xale yooyu sacrifice bu ñu def la pour projet bii ñu bii ñu génne nii man maa leen koy wax sa xale yooyu gars yi dañ leen sacrifié ñoo ak xale yi jot a sàcc boobu ba léegi parce que jour boobu noonu 35 xale ñoo dee Sénégal 35 liir ñoo dee ci territoire Sénégal bi dañu nanguñu ko wax 35 liir. ñoo dee ci bis bi ñu waxee ne xale yi lakk nañ si hôpital Tivaouane bi ci territoire bi ci ensemble du territoire si euh, Sénégal bi trente cinq liir ñoo dee sacrifice bu ñu def la te lii lañ si jublu woon projet bii lañ si jublu woon projet bii si jublu woon man maa leen koy wax te bu ngeen ko weddee di ngeen ko gis tôt ou dëgg boobu dina feeñ tôt ou tard dëgg boobu dina feeñ ñi ñi yàlla may xam-xam ci lasaraar buñ demee xooli li may wax dinañ ko gis. ñi yàlla may xam-xam ci lasraar bu ñu demee xoole li may wax dañ ko xale yooyu deewuñu par hasard loolu buñ ko gëmee rek buñ ko gëmee rek juum ngeen gars yi na ngeen Ousmane Sonko li mu leen wax ne leen ngeen nekk ngeen ngeen resté à l'écoute gars yi nañu resté à l'écoute fi mu ne nii carte gi commencé naa leer parce que voilà li ma bëggoon wax sànq mooy conseil constitutionnel bi ak Macky Sall reculé nañu. parce que nee nañ waa askan bi am nañ droit déposer beneen recours. am nañu droit déposer beneen recours c'est-à-dire bu ñu déposé waatee beneen recours c'est sûr que recours boobu dañ koy valider kon taxaw bi taxawaay bi ñu am démb yaa ngi dëgg taxawaay bu positif la. yaa ngi dégg fu ne nii mais nañ waa Yewwi askan bi ñu déposer beneen recours loolu lu muy tekki mooy. recours boobu noonu dañ ko dañ ko day jàll loolu lay tekki même bu fekkee liñ si jublu woon au fond au fond man sama xalaataan liñ si jublu mooy euh, nu mu tudd jàllale lissu benn boo ko yaakaar bi nga xamante ne ni warul jàll man pour man lii lañ si jublu woon jàllale lisu benn boo ko yaakaar bi nga xamante ne warul jàll mais en même temps éliminer waale lisu yeewi askan bi bu fekkee taxawuñu woon bu fekkee taxawuñu woon. en tout cas moom képp ku fi taxaw fii naan ay waaw réew mi surtout jeunes yi surtout jeunes yi su ma nee jeunes yi sax nervi yi ñoo tax may wax ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp nervi am na ñoo xamante ne moom ñooñu ay doomaraam lañ ñooñu mënuñ sax jariñ seen bopp bay jariñ jariñ seen réew waxuma ak jeunes yi nga xamante ne mënuñ sax jariñ seen bopp bay jariñ seen réew mooy booy ma gisoon ter keroog ñu génn naan waaw ñoom xaru tabaski lañ tal yéen booy di ngeen yàgg mu xaru tabaski di ngeen yàgg am problème xar tabaski naan waaw demuñ si manifestation bi ñoom xaru tabaski la ñu am xar tabaski la ñu tal yéen booy ragal naa ngeen yàgg am xaru tabaski ngeen dem ba màggee di am problème xar tabaski yéen seen xel demul nii depuis daaw ba ren amu leen cinquante mille francs bu ngeen denc parce que li ngeen wax loolu lay tekki bu ngeen toogee ne yéen amu leen xar tabaski cela veut dire que bi passé ba tabaski bii nii yéen amu leen cinquante mille francs yoo leen denc yéen loolu tiitaru leen. xalaatu la lan moo waral euh, ngeen am jafe-jafe yooyu te li gën a garaaw mooy yéen a ngi gis Farba mu jël suñuy saaku milliard dem nëbb ko biir këram parce que géwélu Macky Sall la yéen dama leen kër Farba Ngom dëgg ndayam jël seen saaku milliards yooyu. ngeen taxaw naan du ngeen xeex pour seen àq ak seen yelleef yéen booy yéen a bon yéen a bon ñàkk jom booy yen a bon yéen a ñàkk jom. yéen ma leen doon xaar ngeen ne Farba Ngom génnal suñu xaalis sunu xaalis bi nga sàcc yóbbu ko dañ ko sa kër génne ko yéen wax leen loolu yéen Ousmane Sonko ne leen kaay la ngeen xeex seen àq seen yelleef ba seen sœur yi dem Dubaay dafa lekk ay day ah dootuñu fa demati loolu loolu arrêté ba seen rakk yi nga xam ne ñu ngi lakk ci hôpital yi pour ay climatiseurs yi ñu waroon a changé changé wuñu ko Farba Ngom jël xaalis bi ñu waroon changé climatiseurs yi yóbbu ko këram denc ko fa ba xale yi dee ci hôpital yi yéen yul génn leen ngeen xeex loolu yi ngeen doon ngeen taxaw naan Ousmane Sonko ñun amuñu jotu jotu jotu marché yan boo yeneen ñàkk jom yeneen ay doomaram yan boo yéen yëpp dañu waroon jël yóbbu leen bàngoo yéen booy yéen gënu leen xeex pour seen frères yi dem jël gaal gi dem di dee ci géej gi jëlee di leen dunde te milliards yi Farba Ngom yor bu ñu ko indiwoon tey mun nañ ci mun nañ ci créer ay liggéey yoo xamante ni boo yooyu mun nañ bañ a jël gaal gi seen frères yi jël gaal gi di ci géej gi par centaine yéen xeexu leen pour loolu arrêté doomaraam yi ngeen taxaw naan ay xaw ma lan franchement yéen booy booy ñàkk jom ngeen ay booy ñàkk jom ngeen yéen booy yéen xeexu leen pour seen yaay yi nga xamante ne léegi 5000 francs sax doyatul pour ñu dem togg añ bu añ bu normal 5000 francs doyatul pour ñu togg añ bu normal yéen xeexu leen pour loolu yéen xeexu leen pour seen frères yi nga xamante ne ay lébu lañu géej gi. amatuñu benn yabay bu ñu napp ci géej gi ah di dem ba ay Mauritanie ñu leen fay dóor ay balu fetal yéen xeexu leen pour loolu doomaraam yi ngeen doon ah. yéen xeexu leen pour sëriñu daara yi nga xamante ne nii saa yi ñu ngi leen di jàpp di leen tëj ci kaso bi benn par benn ay nitu diine Macky Sall bàyyiwul sax nitu diine yi hmm? yéen jiw leen xeex pour loolu doomaraam yi ngeen doon ngeen taxaw di wax ay waxu ay xaw ma lan yéen doo leen am xar tabaski yéen. yéen du ngeen nday am xar tabaski yéen yéen ba ba ngeen di màgget da ngeen am problème xar tabaski yéen booy. parce que da ngeen nekk seen biir kër nit fekk neen fa di jël alal bi ngeen moom ngeen toog ne non non lan. en tout cas man moom kontaan naa dem ci taxawaay bu dëmm bi loolu réew mi soxla génération bu nekk dafa am mission am soo daf koy assume wala mu trahir ko. te ñu ñi nga xamante ne ñoo fi nekk tey di jëm surtout commissaire Keita boobu man rusu naa doomam bi quoi franchement man su ma rusuloon doomam bi naa ko wax lu tàkkateru fay commissaire Keita li doomam bi taxaw di xeex rek moo tax mënuma ci moom dara ba comme commissaire Keita moomu parce que xam nañ lu bëri ci moom ah li mu nekkee woon Sénégal yëpp bi muy nekk policier ñun xam nañ ko mais ñun rus nañ ci doomam parce que doomam taxaw na taxawaay bi ci war dinañ ko ko xoolee ki ma ki ma ki ma ki ma doon laaj ci démb te gisuma ko mooy Bamba Fall te Bamba Fall fan la nekkoon démb ah gars yi Bamba Fall ko gis démb non mais eh, Bamba Fall waroon nga génn dem Bamba Fall waroon nga génn dem ñu lijjanti la mu jeex takk ba dootoo tëdd ak jabaru jàmbur yi dootoo dem di tëdd jabaru jàmbur yi. yow Bamba Fall dëmb boo génnoon dootoo tëdd jabaru jàmbur yow Bamba Fall. barki Seydina Mohamed Bamba Fall yaa yaa yaa baax sëriñ Bamba Fall yaa baax sëriñ ah Bamba dëmb yàq nga ko dëmb war nga génn li nga boo génnoon dëmb gaa yi nekk mbir naa yor fa ay jabar yëpp nañ nekk ci jàmm lii nag moom moo leen war a yee. te xam ne ñii nekk ci réew mi ay dulkat lañu amuñu fit gëmuñ seen bopp ay dulkat lañ ay xaju tubaab bi la ñu tubaab bi jàpp délaissé leen comme ay xaj ñu ñoo jiite réew mi ñi réew mi ñëpp ay xaju bi lañ te bi xaj la gën a fonk nit ku ñuul loo ngeen xamul ma loolu laa bëgg ngeen xam ko tubaab bi xaj la gën a fonk nit ku ñuul li may wax nii ah laaj leen waa bi ñoom dinañ leen ko wax ñoom xam nañ si dara. tubaab bi nga nekk fii xiif xajam nekk fii xiif mu yor benn benn poju ginaar jàppal ne xaj bi moo koy lekk yoroo ko lekk li may wax nii bu ko weddee laaj leen gars yi nekk ci kaw bi ñoom dañ leen ko wax. tubaab bi xaj la gën a fonk nit ku ñuul kon déglu leen Ousmane Sonko du wax ak yéen déglu leen ko. maa koy répété xam naa mu laa tëjee vidéo bi. non Bamba Fall dafa waroon ñëw démb Bamba Fall man xam tax ñëwul man li mu ñëwul métti na ma billaahi li mu ñëwul métti na ma Bamba Fall bu ñëwoon démb rek ñu tàqalikoog moom kon de dootul tëdd ak jabaru jàmbur wóor na yàlla <laughs> boo ñëwoon dootul tëdd ak jabaru de billaahi dootul tëdd ak jabaru jàmbur dootoo bàyyi ba gaa yi génn dem liggéeyi nga jaar ci ginnaaw parce que am nga jot parce que liggéeyoo politicien simple nga nga jaar seen ginnaaw di tëdd ak seen i jabar. Bamba Fall dootoo ko defati Bamba Fall barki Seydina Mohamed dootoo tudd ak jabaru jàmbur Baye Fall dem boo gënoon Bamba Fall te pourtant Ousmane Sonko dafa ñëw ba sa buntu gàll yow sa wax ju rëy ji <laughs> ak li ñu fi wax yëpp Ousmane Sonko ñëw ba sa buntu wax fa lépp wax fa li sénégalais di dégg boo gënoon dem barki sëñ maam xam Bamba Fall boo gënoon dem di nga di nga di nga li nga doon juddoo yow di li nga doon dem di ànd ak Macky Sall di ko rëccu kon démb barki Seydina Mohamed may tëjee vidéo bi nii Ousmane Sonko moom mooy mooy héritier moo fi le moo fi le seul héritier mag ñi mag ñi fi taxawoon dëmb di xeex ak tubaab yi Ousmane Sonko moo fi le moo fi le seul héritier ci mag ñi. di kontaan encore une fois ci yéen booy. dem moom gaay naa. Net Bi moom sama xol sedd na quoi giif naa nag quoi giif naa tuuti le temps que ñu dem dem ñu yegg 2024. voilà daa leen jëf te nag taxaw leen ah Ousmane Sonko ne leen ngeen taxaw bu baax déglu yéen ñëpp taxaw déglu daan jëf